yaakaar naa fii bu ma fi jógee dinaa gën a laxasaayu doon seen mbaay faal di leen muritu di leen tarbiya ndax tey saal bii ñi fi nekk du ay ginaar de ñu leen suy pepp di leen topp maa gënoon a a jënd ay bi mu agsee si salle bi ba gis mbooloo mi kontaan la def ba manifester ko si ay compliment yu mu jëmale si askan yu bàyyi ko fu nekk ñëw ngir nag teewee aliment bi muy amal moom Mariama Touré nekkoon si bokk gis-gis bu Pape Diop tey fas yéene jàppale Thierno Alassane Sall candidat à la candidature si élection yu ñu jëm di 25 février 2024. ndax sama xol tooy na tooy boo xam ne wax dëgg yàlla salle bii bi ñu ko defaree ba lu waral mu tàmm Thierno Alassane Sall jàpp na ne ay valeur la ak jëf yu mu def mu yëkkoo te gis na si moom profil bi ka mën a yor réew mi. may wër bu baax ba dañ ca nag dal ci meilleur choix dal ci meilleur profil kooku mooy kan kooku mooy Thierno Alassane Sall kooku mooy Thierno mooy kan mooy ki ñu ne si yel pétrole bi ñu jaay ko mu ne déedéet du jaay sama. def ko kooku mooy jar na Alassane Sall man maa tànn meilleur profil xanaa man maa def choix bu baax ci réew mi sama doomi réew nangul ma ko doomi département Mbacké nangul ma ko laxasaa yi kooku ñun dañ koy delloo njukkal bu ñu amoon ci Sénégal suñu doom yi di dem ci géej di dee am lu ñu desee ci ba suñuy doom mën cee dund kooku mooy Thierno Alassane ma moo ko découvrir wëri ko ba gis ko delloo ko njukkal ne ko njaboot bu ma am ak lu ma mën dinaa la booleeg ñoom ndax yow yaa yeyoo delloo njukkal ci Sénégal bi ma war booleeg yow sama xol sedd na ndax man maa waxoon département Mbacké ne man du ginaar bañ may suy ndax politiciens yi fii ku fi ñëw ku ne dañ laa jox ay millions nga doog ñëw man leader bi may jàppale yëgul ndaje mii ma woon tàgguwuma ko ci keroog bi ma tànnee choix bi ba tey woowuma ko téléphone ñetti yoon laa ko mës a jël téléphone moom Thierno Alassane Sall waaye damaa xam ne dafa lebal Sénégal loo xam ne dafa jot ñu fay ko ko moo tax ma jël sama engagement ci moom ànd koog yéen. si ndaje bii de moom Mariama Touré yombalul ko dara waa nguur gi ndax jàpp na ni kat seen politique baaxul ndaw yi gis ñu si seen bopp te danoo échec moo tax muy soññu ndaw yi ngir ñu taamu la bon profil bi mu jàpp ni kat ba tey bii. ne dañ ñuy diigal ñuy ñàkk suñuy doom te kenn du leen dëjal suñu doom yi jeex nañ ci géej gi Mariama Touré moo doon responsable des femmes bokk gis-gis bu Touba di ndaw su am expérience politique ndax yàgg na ci terrain bi boobu ba léegi tey ji nag ñëw na ngir ànd ak Thierno Alassane Sall ci élection yu ñu jëm di présidentielle 2024 profité na ci ndaje bi jël parrainage yu tàkku jébbal ko leaderam